Pour tomber enceinte rapidement, pour tomber enceinte rapidement, il faut faire les rapports sexuels au moment de l'ovulation plus ou moins 3 jours maanaam pour teel a am doom da ngay sëy ci jamonoy nawet jamonoy nawet ci wàllum sëy mooy jamono joo xam ne soo ci sëyee da ngay am sang trop pour ëmb jamono jooju nag mooy bésu ovulation bi nga yokk ci ñetti fan wala nga wàññi ci ñetti fan muy juróom-ñaari fan yoo xam ne boo ci sëyee da am sang trop pour ëmb kii day laaj ban garab moo baax ci saan garab yi baax ci saan nag bëri nañ trop waaye ñoom ñëpp ci famille bi ñaa antiparasitaire la ñu bokk boo demee ci waa kër docteur dañ la bindal ci garab bu baax ci saan ci wàllum fajam aada ak cosaan nag jinjeer bokk na ci yi nga xam yoo xam ne baax na lool saan lii na ci li tax ñu demandé bilan hépatite femme enceinte bi ci jiitu moom mooy prendre en charge yaay ji waaye tamit prendre en charge bébé bi prendre en charge yaay ji yaay ji bu defee analyse hépatite bi su négatifee dana mën a entamer ay ñàkkoom maanaam mu commencé jël ñàkk hépatite waaye bu fekkente ne dafa def analyse mu positif mu positif su boobaa non seulement dana mën a permettre ñu prendre en charge la mère mais tamit dina mën a permettre ñu prévoir béy bu su juddoo dans les 48 heures ñu defal ko sérum hémoglobine humaine de l'hépatite B